ay ndogu yu takku lool te am solo moom la daal di togg jagleel ko sëriñ Sidi Mbàkke xalifa cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ki jëf lu ni mel di sëriñ Abdou Sakkoor Fall moom sëriñ Daam Fall nekkoon juróomeelu xalif maam Saliou Fall daaru xafoor moom sëriñ Abdou Sakkoor Fall mi ginnaaw fukki at ak juróom yu mu tarbiyewu sëriñ Sidi Mbàkke moom cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ba mu wàcce ko daal di koy gërëm ci atum 2014 ci la daal di jotoon ndigalul la di togg ndogu yi ci bisub laylatul xadr ki ñu xamal lu ni mel di sëriñ Falilu Fall mu sëriñ Daam Fall moom maam Saliou Fall bàyyi ndaam di woy juram di sëriñam da ko jëloon jox ko Cheikh Abdoul Ahad waa mu nekk fay liggéey ba jégg jaajëfte ba ñu gërëm ko sëriñ ba ci boppam na sëñ Sidi Mbàkkeem sëñ Abdoul Ahad na fi yàgg te lii ngeen gis mu jëf ci réew ji ci ndogo yi ndigal la ko amee ci moom mu jox ko ko ndigal looleet ba mu déggee na jox na ko ko mu dugg ci noppam ba suñ joññi tey saa bu waxtu bi jotee ci leesu xadr sëñ Abdou Sakkour mi lam am ak lam amut ak lépp da koy sabablu def ko jagle ko bés bi li ko dalee ci ganaara ba ci nag ak mboolem lum mu war a àndal ci xeetu toggin wu mucc ayib te sell lool mu daldi ànd ak njabootu maam Saliou Fall Guilé ngir yóbbul liggéey boobu Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad liggéey boobu Serigne bi daal na koy rafetlu bu baax moom Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad Mbacke daal di sant Serigne Abdou Sakkoor Fall ñaanal ko bu baax ginnaaw bi Serigne Abdou Sakkoor Fall mi jëf-jëf ji daal dinay yëkkati ay kaddu. boobaag léegi 2014 lañ ko tàmbalee woon fukki ginnaar lañ ko tàmbalee woon rey nañ xar rey nañ nag. rey nañ koppin lépp loo xamante ne dagan na daal gileem lañ ci rey gut kon tey ñu ngi ñaan daal yoonu sëñ am tànki na tànk kanam rek la am fas yéene daal chaque lay la doxal lépp luñ man ak luñ mënul ñu def ko ci indil ko ko fii sëñ sëñ siidim sëñ blaat ànd koog mbooloom waa kër maam Saliou Fall yëpp samay mag samay rak samay jarbaat samay xarit ñëpp ñëw at bu jot mu koy defal ay ndogu yu mel nii ah lañ ko yéene lépp xañ na mënuñu ko ci waaye ñuy àndandoo moom di ko ci jàppale ak nekk ci wetam ak di ko ci ñaanal tey ñaanam yàgg ko def. Serigne Khadim di jëwriñu Serigne Sidi Mbacke Abdou Lahat di andi ay seede ci Serigne Abdou Sakor Fall. ñaar yi nga xam ne moom la mën a ndamoo ëllëg muy ngërëmal yàlla di jóge ci Serigne Abdou Lahat jaar gi Serigne Sidi ñëw ci moom bi mu koy jot sama làmmiñ ci noppam kaay wuyu sëñ bi. ndogu yi bi mu ciy jot ndigal di ko war koo ci laylatu xadar gi sama làmmiñ ci noppam kaay sëñ bi. mu jot ci ndigal ngeen xam ne ne jëwriñ nañu la ju mat jëwriñ di koo xam ne kii lu ko waaye jox dana ko jox fu dana ko def fun gis ndax sëñ bi la koy def